yéen dañ leen jox suñu réew mi douze ans ngeen yàq réew mi rey bi ñu génn réew mi génn nit ñi réew mi. maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñëwaat di wax ak waa réew mi di dolli ci la ma wax ndax ëllëg olof yi dañ lu mu lu mu ñaw ñaw ñaw dees na ko daal ëllëg lu mu ñaw ñaw dees na ko dagg ñi xamul ëllëg mooy paaka ba jaas lu mu ñaw ñaw dees na ko dagg pour mu gën a ñaw xam na ne nag Sénégal gépp yeewu nañ xam na ne ñëpp ñaw nañ waaye. dañuy gaabeerante rek ndax gis ngeen opposition bii dajaloo am na ci ñoo xam ne sàcc ñu benn dërëmu Sénégal waaye da ci am ñoo xam ne dañoo sàcc ay milliards yi Sénégal daw bëgg a làqatu ji assemblée nationale ndax xam ngeen ne su ngeen leen watee def leen député dañu am immunité parlementaire nga xam ne pour nga jàpp leen du yomb lu moo tax ñoom ñëpp ñu lëm seen dëbës pour na ay député la ñu doon sénégalais nag yaakaar naa du nangu nga sàcc leen aller wëlbatiku sàcc leen retour ba pare ñëw laaxatu seen ginnaaw ñu laaxaat na kooku moom sénégalais yi duñ ko nangu kon maa ngi demandé sénégalais yépp ñu xam ne opposition bi xaaj bi xaaj bi ay sàcc lañ te assemblée nationale lañ bëgg a rawee ci dem laaxatu ji fa ndax xam nañ ne seen i juge dem nañ seen i avocat seen i magistrat seen i seen dem nañ seen i commissaire dem nañ seen i seen dem nañ moo tax nga xam ne jub jubal jubbanti bii leer na leen day dal ci seen kaw ndax xaaj ba ay sàcc lañu assemblée nationale nag du ngeen fa làqatoo déedéet <coughs> du ngeen làqatoo assemblée nationale yéen dañ leen a jox suñu réew douze ans ngeen yàq réew mi rey bi ñu génn réew mi génn nit ñi réew mi li na ngeen jiñ ko doomi jàmbur yi jiñ ngeen ñu ci force spéciale jiñ ñu force occulte jiñ ñu fi robet jiñ ñu lu ne jiñ ngeen ko doomi réew mi di leen rey guddeeg bëccëg amu leen benn yërmande ci doomi réew mi bërki démb dong la juróom benn weer a fi daw juróom benn weer moo fi daw suñu diggante yéen coono bi ngeen ñu teg ñuy jooy suñuy doom nëppeeguñ dëjalaguñ xamaguñ ka rey suñuy doom ñenn ñi bëgg a daw te ña rey suñuy doom bëgg a daw dugg assemblée nationale <laughs> yéen a yéen a yéen a yéen a nar a mbay yéen a nar mbay yéen ko wàcc assemblée nationale ku rey doomi jàmbur doo fa dugg ku sàcc alali jàmbur doo fa dugg te xaaj bi ci opposition ci ci opposition bu bon bii nga xam ne duñ opposition dara ay sàcc ak raykati nit xaaj bi fa lañ bëgg a dem làqatu ci loolu sénégalais yi duñ ko nangu kon yéen sénégalais yi yéen laay waxal gis ngeen barki démb maa ngi démb yi dajaloo xaaj bi APR lañ bokk ñooñee xam na ne dañ leen dañ leen di jàpp ngir sàcc guñ sàcc alali jàmbur ak seen loxo takk gu mu takk rek moo tax ñu bëgg a daw dugg assemblée nationale mais déedéet foofu du ngeen fa dugg te loolu sax taxu leen a raw kon ñu ngi sàkku ci senegal yi ñu xëpp seeni bët xool te xam ne luñ dund fukki at ak ñaar ñaanat yàlla dund ko ci réew mi yéen réew mi fi mu toll ñëpp am jàmm ñaar ñuy xuloo sax nit ñi gisatu leen di félicité ministre de l'intérieur bu baax waaw di félicité ministre de la justice kon nag réew mi jub jubal jubbanti insha allahu rabbi jouru élection yi la woon fa woon ñoo xam ne leen ñu dañoo jub ci réewum dictature mii ngeen ñu yore woon bëggatuñu nitu système bëggatu ma nit bëggatuñoo gis nit ku bokkoon ci système yeen ku leen di joxum réew ku leen jox assemblée nationale barki dem ngeen génn assemblée nationale matagul vingt jours lu ngeen nekkee woon assemblée ban njëriñ ngeen amaloon nit ñi ci assemblée ba. complot pour dàq élection yi. waaw complot pour dàq élection yi ñaata nit a ca ñaata nit a ca faatu ñaata nit a ca faatu ah ñaata nit a dee ca loolu da ngeen a yaakaar ne rey googu bokku leen ci lu tax ngeen bëgg a complot bëgg a dàq élection Sénégalais yi te Sénégalais yi dañuy leen élection hmm. ngeen wëgaat ne na leen yóbbuwaat assemblée nationale. te kenn du ko nax ñaar yoon barke sëñ Bamba bay boo ngeen saw su tëri